3S Pro. Uruguayo. combat yi tax gars yi di déplacé wu ñëw ca làmb ji ndaxte ñaar ñi Sénégal ñoo leen bëgg bëgg seeni combat ci am nga ci yow loo xamante ni nii rek yaa ko moom sa ay champion bi combat bi combat la boo xam ne comme ni ko HBK yi waxee ah sénégalais yëpp ñoo bëgg combat bi parce que ñaari mbëri ay mbëru amateur lañu non seulement ay mbëru amateur lañu mais ay mbër lañu yoo xamante ne nii dañuy dundal làmb dañu koy neex ak coup combat la boo xamante ne le 15 le 15 mai yaakaar naa ni sénégalais dinañ dund benn journée boo xamante ne dina neex journée bi ñu mu neex déjà journée bu liiru jaan ak wuli nekk rek. ma la ak yeneen yi biir ak yeneen fi waaj a waxtaanee parce que Tapha Gueye numéro 2 mi a moom ak beneen jinne bu nekk ci làmb ji kon loolu sax ça veut dire que le 15 macha allah. ne le 15 kontaan. ndax xam tamit mi ngi sama wet. non c'est vrai c'est vrai. xamante ni saa yu ma yeew sax mu nekk koo xam bëgg na Sénégal bëgg na sport Sénégal bëgg na culture Sénégal xam nga mi ngi def ci diine mi ngi def ci éducation. donc bu ndaw mel noonu ci réewam rek. boo ñaanal ko war a jàppale. ñu nuyu Cheikh ñu nuyu Fade gis nañ ko ñu nekkee manager yi ñu nekkee ñu waxtaan. Air Max. bëgg sauver làmb ji te bëgg mu jàppale ko tamit bu baax a baax gis ñu taxaw liiru mooy li may wax Amérique lañ xamante ni mu jël tam sama rakk boo xamante ni def ko xaritam muy Mansour ah donc démb la kii ñëw tey gis ma rek bëgg ma. maa la bëgg a. Ah. maa la bëgg a bëgg lu. maa la bëgg a sama bopp. dama laa bëgg a sama bopp. Souleymane maa la bëgg bëgg lu. bëgg la da ngay bëgg bëgg lu waaye bëgg la donc bis bi. bis bu rëy la xam naa ni yéen seen premier round lamb ji lay nekk MMA ko yóbbu ko New allah léegi nag ñu signé contrat bi xam ne bu ñu génnee ci biti ah def deuxième partie bi donc permanent xam naa ne yow yaay manager dama lay jox dig bii signé xaalis kontaan nag yow di la félicité comme maay comme maay ah, comme maay comme maay duma ah, léegi après ngeen jox ma adresse ah. mbër yëpp moo génn. ci nekk laal nga sa chèque. ci nekk laal nga sa chèque. chèque baa ngi. lii waree sa chèque yow. maa njëkk a laal maa njëkk a doon. lii doo amee sa chèque. lii gënee sa chèque. gënee lii. waaw ah, waaw preuve bi. waaw ah. di gërëm moo gën bu baax. di ko sant. non yow yow da nga ko war a gërëm parce que xam nga la. li mu la fay mosoo koo feeku ci lamb da nga ko war a gërëm. nit boo defee la baax da nga ko gërëm. man mii man bi ma ko gërëmee tey mosuma ko fee. kon da nga ko war a waaw. mais foog ma kontaan li ma yor moo ma ko jël kon foog ma foog ma gërëm ko damay wax moo gën doo gërëm kenn yow yow moom damay jëlee portable bi ko intéressé portable baa ngi ci man ba léegi kon nag bi may gërëm moo gën xamoo moom ma ne tey rek yow da nga ko war sant yow dimbali ma soo fee rek la yow arrêté naa la duma de eh, eh, ah, ay waay jugal ah non taxawal taxawal ay Mobile, mobile. Mobile. mën naa ko waaye maa ko daanoon maa koy may revanche maa ko daanoon maa koy may revanche. waaw maa ko daan maa koy may revanche. waaw waaw kontaan nañ ci yéen gërëm nañ sant daal li ma ko xiifoon booy bi. ndax dafa rëy làmb bi dafay mënul wax. dama ko xiif boo génn ñoo ngi koy félicité. bu baax a baax lu mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko raw. waaw suma waay la sama frère suma rakk la suma xarit la sama frère waaye bu Amérique waa Amérique waaj leen maa ngi ñëwaat. 116. 116 waaw ay sama gars yi ay maa ngi ñëw Mafal gars yi ñëw leen seen bés. Eh, eh, eh, maa ko fa ëpp ay supporters. waaw est-ce que xam nga ne. Mhm. billaay wallaay. Mhm. moo gën waaye mënu faa dem man la. waaye xam mu yow moo gën waaye mënu faa dem bi may woo Instagram boobu yow xamu sama xarit la nit ku baax la. mais moom comme moom day woyaan rek ma ma ma man ma rek la. Mhm. ma ba ko mais moo di ko gërëm. di ko di ko ñaanal di ñëw mënoo wax bàccali bàccali eh, eh, eh, waaw yow mënoo wax di gërëm moo Ndiaye di gërëm waaw Seydou Mat la moo Ndiaye sama xarit waaw moo déedéet fu mu nekkee sa xarit moo Ndiaye directeur Seydou a waaw kii Bathily sama moom man ak moom man ak moom ñoo bokk Amérique ñoo nekk woon dina yàlla doon hôtel. waaw sama xarit bi sama moom frère kii moom sama moom. parce que xam nga ni kaas ba maa ko géré. kaas ba man maa ko yor. kii mooy sama xarit muy Souleymane yow mënoo wax mënoo waay waay mënoo wax. Souleymane Bathily lii Souleymane Bathily nga ne ba ba ba ba ah mais non j'arrête. j'arrête moo gën. dëgg c'est pas que dimbali ma. fii du cabinet oh, booy dama xam sa sarax. dama xam sa sarax. luy saraxam. waaw ah, eh, luy saraxam. yow lan la xar bu muuma. yow xar bu dër. yow damaa xam sa sarax. yow damaa xam sa sarax xar bu dër. waaw merci kii saxam mooy xar bu dër mooy sa sarax. munoo wax xam li ngay jaare mun a wax ba faw. di sant ñoo gën di sant ñoo gën li ma bëggoon di ko ñaan moo ma ko defal mooy kii dama koo dóor jami ba mu bëgg a dee pour man doo tudd wax mu ñëw fi di wax rek sa digganteeg yàlla yow

tuuti na dama lay tuuti tuuti na tënk moom loolu ba da ngeen di wax ba pare après ñu bases